Auchan di ab xeetu supermarché bu nga xam si sénégalais yépp ko ràññeetle dañu bëgg samp ci dëkk bii nga xam ne moom mooy waaye foofa ci Touba dafa am ay commerçant yoo xam si ni dañoo dajaloo daal di créer lu ñuy tuddee Auchan indésirable à Touba bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam si moom mooy Abdoulaye Ndiaye nekk coordinateur collectif bi maanaam collectif Auchan indésirable à Touba muy xamle ne dikk gi nga xam si Auchan bu ko dikkee Touba li mu mën a andi moom mooy concurrence bu nga xam ne si nii bu illégal lay doon boo xam si nii du dëppoo ak ni nga xam ne si nii moom la économie bu Touba mel. parce que économie Touba ay entreprise informelle ñoom ñoo ko composé. mu ni ci loolu nag la ñuy sukkandiku ba tax ñu ne duñu xalaata bàyyi Auchan mu di samp ci dëkk boobu di Touba. buñ sukkandikoo ci nga xam si mooy sëriñ ab Samad Mbacke mu ni leer na naa ñi ni li nga xam si moom la ñu waxtaanee ak xalifa bi ci ñëwug Auchan gi dara ne ci dëgg. mu ni ndax xel mënul nangu xalifa bi di bàyyi ab multinational boo xam si dafay jaay wàllum boisson alcoolisée maanaam lu ci mel ni ay bière ak xeet gu ni mel. wala yàpp yoo xam ne si nii islaam nanguwu ko. wala cigarette di installé wu ci dëkk boobu noonu di Touba. collectif bii nga xam si nag mooy Auchan indésirable à Touba ñu ngi programmé dem gisante ak ki nga xam si moom mooy xalifa général bu Mouride pour waxtaan ak ñoom ci mbir yi.